mooy tënd ko fitna boo xamante ni mooy li nga wax mhm. xoddaku balaa ngay lakkale mhm. kon ñu si lakkale ñu ngi leen di masawu mhm. mais nañuy bàyyi aspect boobu xel bu baax très intéressant en tout soo xoolee pays développé yi ñu ci bëri xamuñu asaka xam nga li nga wax lu am solo la nit ñi ak képp kuy jullit war na ci bàyyi xel ci sa alal nga ciy génne alal bul fàtte ni maître ngi maître ngi poudre te war ko fàtte mais on parle de sécurité bi ñuy nekk école pour mën a tegu ci sécurité bi vigilance ak bay dañ naan da ngeen di jël affaire yàlla mm. ñu jéggal ma ci kàddu bi ngeen def nii pour mën a mm-hmm. xam nan ngeen di étudier sécurité bi teg ko ci yoon ak logique mm-hmm. may interpeller rek ñuy éviter aussi di yónni xale yi très souvent mm-hmm. dañuy dañuy dañuy dañuy sàggan tegal yàlla délé. non non. non waxin la je sais. waxin la maanaam yàlla baax na mooy mooy comme ñun ni ñuy faral di waxee expression yàlla baax na dañ naan da ngay jël expression boobu. Mhm. nga tege ko nële parce que yàlla yàlla bay sa tool. fu laa bëgg a waxee. ñuy éviter nag di di yónni xale yi. Mhm. si waañ yi. Mhm. di yónni xale yi si fëy yi parce que bëri na incendie yu bëri yu am Pape yónni xale si waañ. ne ko taalal gaz indi na ko ci ay kër yu bëree bëri. voilà mu ngoog en tout cas am na solo c'est vrai que euh, sujet yëpp du ñu am temps pour détailler ko mais bu ci nekk important na xeetu important boo xamante ni bu ne jar na émission ak débat euh, pour gën a sensibiliser te ñaax ndax ñun loolu lañ fi nekkee euh, ci télévision Futur Média merci beaucoup Yacine Seye Diop avant de retrouver maître Ousmane Seye invité bu quartier général pour waxtaan ak moom ci ponk yu bëri au moment où ñuy waxtaanee li nga xam ne ni moo lëmbee réew mi tey ak xaj yooyu indi ay euh, jafe-jafe di ay pitbull ñu ngi may xamal ni Pikine euh, sous-préfet bu daagu daan dafa ordonné euh, la mise à mort de cinq pitbull pour ñu rey leen euh, service département d'hygiène hygiène ak élevage def na loolu sànq bi 22 heures jotee donc ce qui veut dire que bi ñu commencé émission bi dem nañu pour faat cinq pitbull foofu ca daagu daan ñi nga xamante ni ñoom ñoom moom xaj yooyu rey ñoom déféré nañu leen au parquet cet après-midi paraît-il Marie-Louise Euh, ils ont été donc déférés cet après-midi euh, pour coups et blessures volontaires avec incapacité temporaire de travail euh, c'est des termes assez juridiques mais il paraît que loolu moo am tey ak ñi moom xaj ci faat parquet Pikine comme ni nga doon la sànq yaa ngi laajte ndax euh, xaj bi la ñuy jàpp wala euh, euh, nit ki nga xamante ne moo ko moom xam nga mm-hmm. xaj moom kenn du ko dugal ci ay kaso naan ñu koy jàpp dafa mel ni seko bi ñu waxoon ne rek complicité de lan <laughs> trafic ñu jàpp ko voilà ñu jàpp ko moom loolu am na ci yeneen dëkk yi mais fii moom peut-être que amu fi mm-hmm. mais nit ñi nga xamante ne ñoom moom xaj boobu te amuñu autorisation ñu xam nga xaj ay pitbull du ñoo xamante da nga koy yar noonu da ngay am mm-hmm. autorisation pour nga yore ko sa kër wala nga yore ko foo xamante ne pour utilisation bi nga koy amee donc euh, daan bi ki nga mm-hmm. xamante ne moom moo ko moom moom moom moom la ñu war a daan euh, mm-hmm. su nekkee tëj dëj parce que ku blessure xale bi loolu c'est clair que dina am ay mois de prison mhm. mhm. à l'improvise nga ma ko posé mhm. mënuma tëb tëb joxe ay peine et tout peut-être maître su ñëwee très rapidement mu première question n'est-ce pas ah. oui il a été grièvement blessé mais il y a eu des gens qui ont été tués par des pitbulls paraît-il waaw effectivement xëy na damaa xaw avec une ITT de combien de jours uh-huh. loolu ay nit am nañ ci ay peine ferme en ah, maître. Mm-hmm. Mm-hmm. <coughs> waaw d' abord dama leen di dama leen di nuyu. Mm-hmm. di leen di ci yi. di sargal askan ci weeru koor bi ñu nekk. Euh, di baal àq ñëpp di ñaan ñëpp baal ma àq. Euh, di nuyu aussi borom kër gi.